tamit am beneen euh, événement muy anniversaire événement yi fi amoon ca mars ba la ñu weesu mooy mm-hmm. coow li diggante woon ak Sonko aji saarak yi demee noonu mm-hmm. aussi euh, ci semaine bi aussi ndaw si aji saar moom tamit def benn sortie le monde loolu tamit jur beneen coow mm-hmm. donc yooyu noo ko jàngate waaw man de daanaa wax ci événement bi waaye daaw mu wax ci Adji Sarr daaw mu wax ci Sonko ndax loolu sama diina daf ma koo tere sama diine nee na bu mu wax ci Sonko ci affaire boobu bu mu wax ci Adji Sarr ci affaire boobu ndax law laay euh, euh, law laay samitumu qultum maa yakun lana an natakallamu bi hada sunu borom nee na ku dégg lu mel nii néew sañu ma cee wax bu dee événement bi nag nan ñaan yàlla mu bañ fi amati ñaan yàlla li koy sooke bañ amati waaw nan ñaan yàlla li xewoon 3 mars daaw yàlla bu fi amati lu dëgg koy sooke it yàlla bu amati ñi seen xel nekk ci génn ci mbedd mi di def ay kéem yàlla bu fi amati ñun jàmm rek moo ñu jig ndax jàmm mooy jig jaboot mooy sukkuran beneen xew-xew bi c'est à international mais aussi ñun muccuñu ci muy guerre bi nga xam ne ni taq na ci diggante Russie ak Ukraine Vladimir Poutine bi mooy juróom-ñeenteeli fan bi mu songu euh, Ukraine moom nag lu muy ñaxtu ñëpp xam nañ ko nee na waa le monde occidentale dañoo bëgg a daal néewal ko doole ndax dañoo bëgg a jël Ukraine taf ko seen bopp te Ukraine dafa sës ci moom rek te bëggul ay noonam sës ci moom rek tax mu déclenché xeex bi ne dafa bëgg a imposer statut neutre Ukraine coow loolu noo ko gisee. waaw am na solo lool. Mhm. coow la loo xam ne ëpp naa xeeb. Mhm. ndax euh, Union soviétique ak seen ruq-ruqaan soosu. Mhm. ku ne xam na li fi daan xew. bu ñu nee ba kii bëgg def nii dafa am peut lu ko Union européenne bëgg def wala lum ko def wala lum lum jàpp ne loolu la. léegi nag nañ teg taabal ji lépp ci kaw taabal ji loolu ñuy ragal ak a def yëf ñu wan ko ne du loolu rek parce que ñoo bokk yëfi te itam suñ ko suñ ko fi taale yàlla tere. adduna si ñoo ko yëg te nun fi ne taluñu troisième guerre mondiale. du dëng léegi nag Poutine dafa am ay xalaati boppam yoo xam ne moom ni mu gisee adduna si. léeg-léeg du bokkal noonu xam ngeen moo dégg ngeen la mu doon wa waa Afrique yéen africains yi nangam nangam baat yoo xam ni <laughs> yàlla xam doy na maanaam lu ci bopp bi rek sañ na ko génne wax ko loolu nag jaar na moytu ñu ni ñu koy moytoo nag mooy ginnaaw dafa am lu ñu tuddee union européenne dafa am yeneen regroupement dafa am yeneen g nangam g nangam ñooñu ñooy daje wax lu leer nañ ñi loo xam ne lii dina tax muy daar ay ngànnaayam waaye nañuy jóg farak kii nañu jóg farak kii nañu jóg défendre ki loolu du jur jàmm te itam noonu jàmm rek moo ñu jëkk ci àdduna si te taluñu troisième guerre mondiale troisième guerre mondiale boobu woote jàmm boobu parce que ñaari camp yi ku ne da ngay teengal fu mu toll ah waaw occidentaux yi ñu ngi dëgëral Vladimir Poutine ñu ngi dëgër mu ngi dëgëral te aussi am beneen coow bi ji muy waxum nucléaire ku ne bombe nucléaire xam nañ jëye yu mën a def yàlla mooy tukkil àdduna waaye am na sax ñu ne bombe nucléaire boobu mën na jege lu tukkil àdduna waaw loolu tamit musiba la de moom kay ñu saña wax nañ jóg wax ñu seen kàddu kawe nañ jóg sunu njiiti réew yi njiiti Afrique yi njiiti Europe yi nañu jóg wax ak ñoom lu ko mooy rek ku mer ku ne booy xeex mën ngaa jëfandikoo ngànnaay bu ne te nag bu fekkoon am na xeex bu ñuy xeeb xeexu si ndax laaj jabaram bu fekkoon am na xeex bu ñuy xeeb xeexu si ndax laaj jabaram xeexu si ndax taal na kër kon bu ñu wax ni kii moo néew doole kii moo am doole adduna si ku fi new doole amut déedéet ku ci nekk yore nga say ngànnaay ku am doole it amut ndax suñu borom nee na du bàyyi kenn mu ëpp doole ñëpp ci adduna si da ngay ëpp doole kii ki ëpp la doole rek ëppante doole yooyu nag suñ ko dee topp mën naa am lu ñu jural lu jàkk te itam loolu baax pour tëj parti boobu uh-huh. démb ministre des affaires étrangères dafa convoqué ambassadeur bu Ukraine parce que dañoo woote woon pour ay sénégalais bu bëgg a dem jàppale leen ci xeex wi daal ñu recruter leen ñu dem am na sax nee nañu fanweer ak juróom-benn ndaw yi nga xam ne ni bind woon nañu pour dem. Mhm. loolu it noo ko jàngatee loolu du musiba. Ah, si moom ci loolu xaw cee mhm. xaw cee tiit sunu réew yi léeg-léeg mhm. ni ñuy occupé ndaw ñi mooy xaw a des. te ndaw moom da ngay def ci moom rek mbaa mu def ci yow. bisaan ndaw da ngay def ci moom rek mbaa mu def ci yow. Sidna wax ne. man de danaa gis ndaw sax xëy na mu jël yëfi jàmbur waaye gis ngeen région bu ma dégg ndaw jël fa yëfi jàmbur maa gouverneur danañ ko layoo ñu ne ko lu tax mu ne yàlla dafa bind loxo pour mu liggéey bu liggéeyul lu jàgg day liggéey lu jàggati kon ndaw ñi nga xam ne dañoo toog ñu dara occupé wuñ leen liggéey la wuñ defuñu leen ñu gisee loo xam ne jàpp nañ ne bu ñu ci demee am ci stuut dañu daal dem kat moo moo war loon ñu daan war ci géej gi ñu daan daw ñaa ci géej gi daañ ñaa ngi ci nàngam yooyu lu tiitlu la ñu ngi jaajëfal nag ministère bi ndax taxawaay ñu ci taxaw am na ci solo lool ki nga xam ne moo yor bitim réew ndaw ñi tax xam nga nit bitim réew ñoom tam li ñu taxaw am na ci solo lool waaye buñ xeeb seen taxawaay yi nañ fexe ba xam Sénégal yëpp ak fi ñu toll ak niñ mel ñu mën di ci jàpp waaye fii tam ñu occupé xale yi ba duñ am euh, jotu di dugg ci mel noonu ndax yooyu xaw naa garaw jërëjëf jërëjëf oustaz lan nga ñuy dénk tey pour daan li ma lay dénk tey mooy góor lu ci denc soxna bu fekkee denc goo dencal waaw ndax ku am ñaar fukki at juróom boo dencul ak moo romb rek atum tarde la ku am ñaar vingt cinq ans te dencoo at mu ñëwati rek loolu bu baax mu ngoog at moo romb rek daanaka atum tarde la yàlla boo tardé nag yàlla bu sama caméraman tardé jërëjëf jërëjëf mbokk yi kon jërë ngeen jëf ñu daal di gunge sunu xarit Mbisaan tabarakallahu daal di dellusiwaat ci jataay bi incha allah du yàgg jërëjëf mbokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew jërëjëf sunu caméraman ak sunu technicien yeeg tabarakallah ñëpp rek kon nag ñëw nañ ci ñetteelu xaaj bi ñoom Malick Sall ñoom Ibrahima fay ñoom Baye As ca Makka ak ñu dem ni ki ñooñu 77 ngeen di woote 883 41 83 ñu ànd ci jotaay bi ci la ci des 18h moo jot 19h lañ ko yëkkati mooy 5 kon dese nañu ass minute ñu doon waxtaan ci. wooteb mag ñi waaw ku woote na nga dem ñu wooteb mag ñi wax ne mag ñi dañoo amoon stratégie bu am solo boo xam ne ci la ñuy woo ñu ñuy jàngal ñu ñuy forme ñu ñuy jubbanti penc moo ci dem mag ma am na bésam bés boo xam ne bu sañoon ñam njaboote ñëpp fekk ko ci péncam bu ñëwee mu wax ak ñoom yedd leen conseiller leen labiré leen orienté leen ñu dem ñibbi mag ñëpp a ko amoon tey nag fii nu toog noo ngi ci woote